salaamaaleykum gars yi salaamaaleykum gars gaay Ousmane Sonko yeekatu fitna bi gis ngeen ni mu def Mbàkke jiital ay xale yu ndaw 13 ans 11 ans 12 ans ñuy sànnante xeer ak policiers yi gisu leen ci kenn koo xam ne nii dafa mesure ñi mesure ñi mooy ñi doon filmer te ñoom danoo daw bàyyi fi xale yi ay xale yu ndaw xamuñu dara tout tànk 13 ans 12 an 11 ans ñuy sànnante ay xeer ak ay policiers gat sa gat sa la wax mais gat sa gat sa kay jërul daw fi ñu ko tere woon ne ko jaar fa jaaru fa di jaaru ci tali bi ci yoonu suuf si la jaar di tàggi gat sa gat sa bu fekkee woolu nga sa bopp dangay ngay jaay ñu la tere fa ngay jaar jaaru fa di dañ koo duma duma duma ba toj oto bi gis ngeen oto bi ni ko def dañ koo duma ba toj oto bi xam nga ne kuy dëgër bopp di nga xam ne ñii nga fay fekk gis ngeen osan yi xale yu ndaw yi ko def ñii dañoo xiif sonko lay jàpp osan yi ubbi ci biir jël bagage yi dajji affaire yi buñ leen fa fekkoon tey ji ñu am problème ku ci deewoon tey jii yaay pet tey ji kun ci rey ñu ne ñu ne Macky Sall la nin yebee Macky Sall Ousmane Sonko rey lu boy parce que ay deux cent onze cent nga li dañ leen a duuma tey ba nu daw li ma gën a metti mooy sakk àjjuma euh, bàyyi faal yi dañuy sikkar di di màggal maam Cheikh Fall yàlla ak Serigne Touba ñu koy bubboo naan Sonko la ni màggal yéen a mën a fen yéen a mën a kan moo fi màggal Sonko ban baay Fall kenn màggalu fi Ousmane Sonko Touba la fa Serigne Touba liggéey ak Mbàkkeeg Touba benn la Ousmane Sonko tuuti na ci taal ko tuuti na ci yàqu ko waaw Assane Diouf mii ni ma ko jëppee moom tamit fii la fi nekk jël Serigne Bass Abdou Khadre wax ko lu ñaaw tey mu gis Serigne Bass Abdou Khadre di ko sujjootal naan da koy nuru da ngeen utiliser Ousmane Sonko. katu fitna la baaxul ci réew mi parce que day day yee fitna Thiès gis nga ni ko Macky Sall def xeer jugul bant jugul mbooloo mu bëree ko takk wuy su ko Ousmane ko tey li mu daj Mbàkke du leen ko wax de xaw naa dee doon koo duma duma duma duma duma ba mu daw wëqat jaarul fan ko tere feneen la jaar gat sa gat sa kay da ngay nangoo affronté ñaw maa ngi ñëw live léegi ci kanam merci beaucoup